mais ni nga koy dundee. mooy cest à amuñu paxe cest à boo amee jafe-jafe nga nekk ci réew mu normal am problème ak banque par exemple foo war a dem tribunal boo demee yoon yow <laughs> cër bañ la war a jox duñu la ko jox banque bi la ñuy gën a wóolu ko yow parce que banque bi am na xaalis yow yaa ngi topp sa sàcc yóbbu ko ci banque sàcc bi am na xaalis am na ay relation am na ay lobby kooku pour nga gagné ko dana jafe man je l'ai vécu et je l'ai vu jusqu'à présent j'ai des dossiers actuellement yu nekk dans les banques yu nekk avec les banques nekk dans les tribunaux voilà je le vis tous les jours de même que Bokar Samba donc ñoo bokk problème te dara waralu ko mooy dañoo nekk ci marché euh, euh, ci secteur boo xam ne kenn libéré kenn organisé wu organisé wuñ ko ñuy pëcc xoo di jaay à perte di def n'importe quoi et après banques yi bul lay financé dañuy jël ay garantie il suffit que nga am problème bu ndaw rek ñu profité ci rey la pour lekk jël sa alal. léegi c'est comme nit ku dee dañu banque dañu sàcc alal. état bi donc tout ça c'est des voleurs. Hmm? banque yi ay sàcc lañu yu ñu légalise. <laughs> ça je te dis et je pèse bien mon sàcc lañ leen jàngal. la preuve. boo ubbee compte dañuy ñëw di jël ci compte bi ay frais intérêt yoo xam ne yow joxoo leen ko. ñuy jël di jël ba lu ëpp ba ba mu ba jël lu ëpp nga gis li ñu jël nga ne yi nekk ay yu nga xam c'est des banques étrangères ah. euh, am nga fi problème ak benn banque information boobu ñun ñëpp am nañ ko euh, mais je pense que tey yéen boo leen nekkee doomu réew mi di liggéey pour réew réew mi boo leen amee problème euh, bon l'État ne doit pas être du côté war a am am na. état est ñuy problème yi ñu am ak état euh, banque yi war nañu pour xool nu mu ko mën a régler man am naa problème ba dama bind ministère des finances. nii leen man am naa problème bi ak banque bi def naa moom 35 ans ñu ngi ma bëgg a def lii. ministère lu mu tontu ministre waaye yënguwul sax tontu au moins sax euh, ma ma ma bind banque centrale. banque centrale de mel ni aussi <laughs> nekkuñu fi conseil présidentiel am CPI Radis euh, euh, King Fahd Palace ma ñëw ma ñëw ma jël parole interpellé président la République mu ne ma c'est pas possible ma ne ko sa ministère des finances bind naa tontu ma sax te j'ai un problème ak telle banque def naa ñoom 35 ans tey lii lañ ma bëgg def tontuwuma bind naa banque centrale <laughs> ñoom it même chose mu ne ma c'est pas possible mais gis naa fi léegi directeur banque centrale jox ko micro bi un certain Camara Modou Camara xam mu jël parole jël micro bi hey jot na lettre bi waaye nangam na mais mais mais lu tax dama ko recevoir recevoir leen ko mu ne waa dañ ko recevoir mais nañ ma mais dañ lay déglu après defuñ ci dara.